dëkk bii ñu nekk di Daaru Salaam kenn nattabliwut ne moom la sëñ Touba njëkk am ci kër gu dëkk bu moomal boppam mm-hmm. barab bii di mawlud bi la sëñ Touba njëkk a samp mu di néegam bu ne ci suuf sum àtte ab buur dogalagu ko donnewu ko ci bàyyi fii la Cheikh Mouhamadul Fadal gane àdduna ak Cheikh Mouhamadul Moustapha sëriñ Touba fab dëkk boobu jox ko rakkam joo xam ne amagul ñaar fukki at ak juróom-ñeent la am mbooloo mi mu njëkk a am di juróom-ñeent fukk yooyu ak juróom-ñeent mu teg ko ci loxol sëñ gaawaan mbooloo moomu alaaji mun njaay jóob da cee bokk jege woon lool maam Cheikh suñ borom defoon ko muy nitu yàlla ku sell ci jaamu fii jamono toll nga xam ne ñun pas-pas la ñu toppee sëñ Tuubaa pas-pas ñu bari nag léegi dañuy wax ci yàq xelum nit ki na sëriñ bi li mu woote woon xam-xam la dëgg la waaye fekkoon na fi nag xam-xam fekkoon na fi ay jaamukati yàlla ñu daan jàng alxuraan di def li leen seen borom digal kemtulaayal fa seen kàttan tollu tey sukkandiku ci xam-xam sëriñ bi ñëw yar la leen loo xam ne nag nekk na li nga wax ne li na ci diggante ñaari bind yi xel a koy àggale la na ci diggante ñaari bind yi la sëñ Tuubaa doon firi El Hadj ci ñooñ la bokkoon jeexal fànni xam-xam yépp di doomi soxna piir ñëw jaayanteeg maam Cheikh Anta jaayanteeg Serigne Touba Serigne boole ko maam Cheikh bi maam Cheikh Anta demee Màkka 1928 1929 mu yabal sëñ Modou Mamoun dem ànd ak sëñ Mor Fati Touré 1930 ñu exilé maam Cheikh mu ñibbisi dafa jël Serigne Sam ak Serigne Moustapha Ceytu ak alaaji seexu mbàkke maam yi sëñ maamun mii woo sëñ mun njaay jóob mu ñëw mu a ko demal andil ma abdul karim sa doom dama bëgg mu ànd ak ñii ñu dem màkka dem jàngi sëñ mun njaay jóob ne maam Cheikh Anta abdou karim de damaa bëgg mu toog xam nga dañuy wax ne sëriñ moom bu la waxee rek dangaa war a jëf mu ne ko lu tax nga bëgg mu toog mu ne ko jàng na ba xàmmee farataam ak sunna bu jullee bu jamojee dana ko mën a defar lu yàqu ci diineem dana ko mën a defar dama koy bañ a booleel sa doom nag ñu ànd dem màkka jàngi su demee mën naa am sax mu raw sa doom wala sa doom raw ko suy àndee ñibbi si duutu ko xoolee pas-pas danañ ko ñoo bokkoon daara di jàng te rawoo ma te man sama doom wërta na moroomanteeg sa doom moo tax ma bëgg mu yem ci lim jàng te toog kon kooku am na fa pas-pasam tollu woon sëñ Tuubaa mm-hmm. bataaxale ngi fii boo xam ne sëñ Mbàkke jaxatee ko bind di rakki sëñ am satu jaxate ñu bokk ndey ak baay keroog bi sëriñ Touba demee àjjana vingt El Hadj Mun Njaay Jóob moo ñëw taxawee taxawee ndax sëñ Mbàkke jaxate sëñ am satu jaxate lañu woo mu ne mbirum miraas yoonam nekku ci sëñ Mbàkke jaxate wooyu El Hadj Mun Njaay Jóob ndax ñooy bokk néegum ndey mu ne ko damaa bëgg nga ñëw taxawu sëñ Abdou ak ñi mu bokkal ndey miraasum sëñ Tuubaa moo leen ci taxawee ba miraas ma noppee soixante quatre mil soixante quatre nangam lañ fa am ci xaalis soixante quatre mille et quelque mi ngi nii dama koo tiim muy mbindum sëñ Mbàkke Jaxate mu leer naññi moo xam ne seen wàll ca miraas ma ëpp toon soixante quatre mille deux cent quatorze francs soixante quatre mille deux cent quatorze ci ñu teg ko ci loxol maam Cheikh Anta El Hadj Mun Jaay Jóob daf ne maam Cheikh xaalis bii sëriñ Abdoul Ahad ko moom ak i rakkam te sëñ Mbàkke Jaxate nee na mënu koo denc te bëgguma ñu denc ko mu sànq ëllëg duñ gis lañ amoon seen bàyyi dencal leen ko ba waxtu wuñ doonee mag nga jox leen ko sëñ maam Cheikh Anta téye ko lettre baa ngi nii muy bu leer bi mu ko téyee yàlla dogal maam Cheikh Anta boobu sëñ Abdoul Ahad fukki at ak ñett la am 1914 la juddu sëñ Touba dem 27 kon 13 ans la am mënuñoo mënuñoo doon imam bi ñu demee ba maam Cheikh dem euh, maam Cheikh Anta dem àjjana sëñ Mbàkke Jaxate ñëw ci sëñ Mudu Maamun woolu Alaaji Mun Njaay Jóob mu ñëw mu ne ko sëñ gaawaankat dénkoon nañ ko cent 214 yoo xam ne sëñ Abdoulaye Hatake rek ma ko moom mu ne ko nañ dem sëñ Mudu Maamun ñu bokk toog sëñ Mudu Maamun ne ko d'accord na ma ci yow gàddu naa bor bi te maa koy joxe alali sëñ gaawaana man maa ko koy delloo waaye ci kaw la 31 mars ju la le 31 mars ju ne ci at mu ne danaa ko jox nangam ci xaalis ñu tàmbalee ko ci la 31 mars 1940 mu jox ko 19000 et quelque le 31 mars 1941 mu jox ko 15000 le 31 mars 1942 mu joxaat ko 15000 31 mars 1943 mu joxaat ko 15000. la 31 mars 1944 ci la El Hadj Mun Njaay Jóob bind ne maam Cheikh li mu amee loon njabootu sëñ Tuubaa yi sëñ Muudu Maamoon jox na ko ko signaloo ko sëñ Mbàkke Jaxate kon kooku amoon na taxawaay bu rëy ci digganteem ak sëriñ Tuubaa amoon na taxawaay ci digganteem ak maam Cheikh bi ma ciy daaneelee te muy bu am solo mooy jamono daa toll ci ay wax dañuy faral di nettali ci aj ji nga xam ne moom la sa maam àndoon ak maam Cheikh muy ajug Makka 1928 maam Cheikh Anta fii la xëyee sëriñ Modou Rokhaya moom ko nettali ne sëñ Modou Boussa ko ko nettali bi muy jóge Madina Touré di ñëw di jàng ci maam Mbàkke fekk sëñ Assane Nefa sa wayjur mu am téere bu mu bëgg a jàng ca benn téere la booba ñoom ñëpp ci lañ leen koy tëralal nee na bi ma ñëwee sëñ Assane ne ma benn téere fi nekk te duñ la ko jox xam naa mbàkke mbàkke yi boo ko yóbboo doo ko delloosi nee na ma dem ci maam mbàkke wax ko ko mu ne ma mu ne mu woolu sëñ Assane mu ñëw mu ne ko ah kii nag sëtub seexa mënu fee bëgg lu amul mu ne ko boole nga maag sa waaye du tax nga yóbbu téere ni ngay def daal mooy dama lay jox jukki bi nga war a jàng soo ko jàngee wala nga bind ko boo ko delloosee ma jox la baneen nee na sëñ Modou Bousso ma bokkaleen bind le ma téere bi moom àgg kon am na lu mu xamoon sëñ Mbàkke Bousso nee na ma sëñ Mbàkke moo ko wax ne ko 1928 la sa maam ñëw fii na ma man di damaa amoon yéene ñu ànd maag yow ak sëñ Fallu dem ajali sëñ Touba ndax wóor na ma ne jenn yéene jooju laa xam ci moom jum deful mu ne ko loolu de seex sëriñ bi wax na ma ci loo xam ne fekki woo ko ndax nee na ma woon waajal maag yow ay ànd dem maag te boobaan loolu di nu muy amee jaaxal na ma mu ne ko nag man jekk naa maam Cheikh moo njëkk a bi aw sas ci yoonu murit 1928 la sas dongo bu ne bu dëkk Daaru Salaam téeméeri dërëm ak ñaar fukk ak juróom ku di murit bu yaakaar maam rek maam Cheikh Anta nee la andil téeméeri ak ñaar fukk ak juróom bi ñu dajalee xaalis boobu ba mu bare la ko maam Cheikh Anta denc boole ko joxe ay këram tay la ko ci ay ay titre foncier ñu jox ko xaalis ba mu dajale xaalis ba ngir waajal ko dem Màkka boobu El Hadj Modou Ndiaye nee na dañ ko woo ne ko Modou Ndiaye mu ne ko Mbàkke mu ne ko damaa bëgg a te bëgg ko ma ci gone yi mu ne ko gisal Ibrahima Dia am na kàttan te màkka baax na fa te ku la bëgg mu bàyyi El Hadj Modou Ndiaye Diop dem kenn yëgul sa morom ne ko damaa bëgg a dem penku te ko bëgg ko ma àndal mu ne ko jëlal Modou Ndiaye Diop xel ma rafet na te bëgg na la. te mën naa jënte aw yoon sëñ gaawaan ne yéen ñaar ñii kat li sëñ Tuubaa bëggoon ci yéen nekk na mooy ak defaru ndax yoonu màkkaat ni mu neexee te ku ne yéene ko ko sa morom te kenn ku ne ba ma lay tàggu tàggu ma sa morom naa leen boole yóbbu leen boole alaaji mun jaay Jóob ak alaaji Ibrahima Dia alaaji mun jaay Jóob nee na bi ñuy jóge Sénégal gii maam Cheikh Anta bàyyi na ci banque bu ñuy wax BCA muy banque commercial africaine ak banque bu ñuy wax BFA banque française africaine booba banque commerciale africaine ñetti réew ko seq te seen capital ëpp toon vingt cinq millions nee na maam Cheikh Anta wàcc wa wersi na fa trois millions ci xaalisu Sénégal nga xamante ni bi la ko yóbbaale màkk bokk na ci teraanga yam fa def xe xereñoog Alaaji Moundiaye Diop bi ñu ko booleeg moom bi ni maam maam Cheikh Anta départ fii ni mu demee màkk ba ni mu dellusee bis bu ne la fa maam Cheikh Anta fere da koo bind ci aw këyit oto buñ fa luyee da ko bind ci aw këyit hôtel bu ñu fa jël da koo bind ci aw këyit ba lu fa maam seexante Anta Ndiaye da koo bind bi mu dikkee mu totaale ko Baye Cheikh Jaxate moom wax ne ma banque bu ñuy wax Crédit Lyonnais ci l'Escandria fi la maam Cheikh Anta wecc ko libidoor yi mu yoroon mu nekk ñaari junniy libidoor mu wecc ko benn bu ci nekk nekk cent soixante francs xaalis ba nekk un million ak quelque moom la wàccaale Marseille kon alaaji mun njaay joo ku yàlla dimbale woon la woon mu taxoo woon ak borom gaawan te taxoo woon ak moom am xel xerab moomu nag moo taxoon sëñ Touba yëkkati ci loxoom teg ci loxol maam Cheikh na ko seex dënk naa la mun njaay bul defatil mukk dara ci di soowu leen ci yëkkati itam alaaji mun njaay loxoom teg ko ci loxol maam Cheikh Anta na ko bu la seex digal mukk dara te defoo alaaji mun njaay nee ñu bokk ñaari dénkaan yooyu kere bi yàlla dogalee sëñ Touba dem àjjana maam Cheikh Anta dem Màkka ba ñëw belees belees mere ko ba tax na danaa ko génn réew mi maam Cheikh Anta dem Gambie benn xaritu tubaabam bu fa nekkoon di ab anglophone invité ko fa maam Cheikh dem invitation boobu mu doon dem ñaanutoon permission bàyyi Seexu Mbàkke la alaaji mun jaay Jóob fekk njaareem dégg naa ñu koy nettali ñu bari waaye njaareem la ñu déparé sëñ alaaji mun jaay nee na dañoo ñëw fekk oto yi rang rek Cheikh Anta woolu ma maam Cheikh ma ñëw mu ne ma mun jaay maa ngi dem Gambie ti ñëw nee na ma ne ko ndax ñaan nga autorisation mu ne mun jaay bàyyi lu ñu wax nga indi ci ak wér maa ngi dem te ñëw nee na bi ma rombee bàyyi seexu na ko seexu fu ngeen jëm mu ne ko ah, li mu ci wax ak yow kat waxu ko ceeg man nee na ñu taal oto yi dem nee ma toog ci kër gi xam ne ñii buñ del see ñu jàpp leen nee na ba mu demee ba sori la ne seexu lu la mun jaay wax mu ne ko daf ma doon laaj fu ñu jëm de mu ne ma nga ci kër gay jooy de bi ñu demee ba delsiwaat loolu moo ko beleeg boole booleeg beles jaan mu jàpp keroog bi ko El Hadj Mun Njaay Jóob seetee maam ca Sigu maam Cheikh daf ko ne Mun Njaay mu ne ko Mbàkke mu ne ko yow de ba ma sëñ Tuubaa di wax ne ma natt bi yaa koy àggale maa ngi yow nekk àndoon ca Gabon mu ne mu ne ko ndax booba bu ma demutoon Gàmbi belees dana am yoon wu ma mën a jàpp ba yóbbu ma mu mu ne ko kullu say in sababu mbir mu ne nekk dafa war a am sabab lii mooy diggante maam Cheikh Anta ak El Hadj Mun Njaay Jóob maam nag ci boppam moom musta bëgg a doon ci sëñ Tuubaa dara dara dara la weesu dégg taalibeem te mboolem lu nit di bokk ak sëñ tubaa moo la ko gën a bokkal ndax xeeti bokk yu nuy bokkee sëñ tubaa rek bokk na ko sëñ tubaa moom moo benn baay bàjjanub sëñ jur ko nijaay bàyyub sëñ tubaa muy nijaay yi sëñ tubaa moom ci boppam nijaay yi sëñ tubaa soxna ahmadu soxna buso mi jur soxna astawalo ak ibrahima awañan mi jur anta njaay mbàkke ñoo seen ñaari baay bokk benn baay kon yaay la ci soxna jaara moom soxna Anta Ndiaye maam Cheikh Anta di nijaay ci sëñ Touba ba noppi di rakkam di doomi bàjjanam di doomi nijaayam waaye yii mu tegal la di ko wax sëñ Touba kenn mus a topp sa mag waxe ko noonu mas naa dikkal sëriñ bi naan ko ñaas ma ba ñu ma yow mas naa dikkal sëriñ bi naan ko ma sëriñ bi dox na mooy xalango ca lay bi lay bi di wecc ci ginnaaw maam Cheikh Anta xaaxaam yi di ko jam sëñ Touba topp ci ginnaawam yaa njëkk a fab say mbir ci seenu askan jébbal Serigne Touba nu roowulaat kenn moo tax bi ko sëñ Touba di fay rafaatale ko dëkk bi mu njëkk a sanc muy Daaru rafaatale ko mbooloo mi mu njëkk a am fu mu ko masaa seen wax ko ne ko maa tawfiiqi illaa billaah màggalu Daaru Salaam gii keroog bi sëñ Touba jógee ci géej gi ñëw novembre 1902 la ñëw Sénégal janvier 1903 la ñëw Daaru Salaam ginnaaw bu mu jaaree Ndar ba jaar Njeng Jaw jaar Sannoosi jaar Makka Baabu jaar Kokki jaar kër Maxtaar Saafura Kamara jaar kër Maxtaar Binta Fall ba ñëw Daaru Xadim gii nga xam ne tey jii fa la sëñ Mun Jaay Joob dëkk déegub Daaru Xadim la sëñ Tuubaa wëggee ay fasam ginnaaw bu nu jullee gee ba guddi gi bëgg xaaj foofee la taxaw ne Njoogu Njaay mu ne ko Mbàkke mu ne ko dawal jiitu ji ma Daaru Salaam ne seexante maa ngi ñëw ndax gan du bette alaaji mun njaay yokk alaaji njogu njaay yokk aw fasam bi mu agsee nee na daa fekk guddi gi sori na lool ba fajar di bëgg a jot nee mu gëdd gisul benn bunt bu ubbeeku xoolu benn làmp buy tàkk mu taxaw ci digg penc mi yuuxu seexanta seexanta nee ma dégg bunt yi téel téel yi ma ne ko sëñ Tuubaa ngi ñëw mu ne ñokket na ma may naa la fukki fas yi naaru góor ak ñaar nee na bi ñu daataa ko julli fajar laa seen gawar bi bi bi ñu wàccee sëñ Tuubaa dañoo fekk kër gi lépp di ay seng ak i sëñ gaawaan yable ci taaxum email mii ci Mbàkke na mbooleem lu fi di ab piis nañ ko jënd andil ma ba ndikkee moom lañ wodde woon sàkket yi moo tax ma ne papier peint maam Cheikh ko def ci àdduna ay piis la wodde taax ma Bàmba wàccoon bii bi teg mat la yobur ya sàkkoon loolu sëñ Moussa Ka ko wax mu ganale sëñ Touba ngan goo xam ne kenn mësu ko koo ganale fukki nag ak ñaar ak gëléem guy bëmbu la sii di am ta jox ko baam ba ba muy ay bi seex na taañ ma rendi nit kuy taxaw jox tan yi ndax ñu màndi ba yàlla ne Ibrahima rendil Ismaila ba noppi wottee ko ab gàtt ba yà ba sëñ ga sëñ Tuubaa jógee ci géej gi kenn tëraatu fi nit Ibrahima njëkk a tër nit maam Cheikh Anta ci dolli ko te nga ganalee ko sëñ Tuubaa rek ko te kam doon bëgg a rendi mooy Modou Camara boo demee Mbàkke xewal fekk fa ay sëtam maam sëñ Tuubaa ne ko teg jël sa loxo mu teggi loxoom mu fa kookee jébbal ko maam Mor Jaara kon bis bii mooy bis bi sëñ Tuubaa njëkk a bég ginnaaw naqar wu yàgg woo xam ne ba ndeyam wàccee ab liggéey ca Poroxaan magam wàcc ab liggéey ca Pataar baayam génne àdduna ci Mbàkke Kajoor mu sañ ci Daaru Salaam sañ ci Tuubaa sañ ci Mbàkke Baari dem ci géej gi waxal boppam ne samay kër tas na sama njaboot ci saaroo nañ ngir may liggéeyal yonente bi alayhi salaatu wasalaam 1903 bi mu ñëwee Daaru Salaam fekk sëñ Fallu mokkal alquran mu Mudu Moustapha mokkal alquran sëñ Baara mokkal alquran ñu yët bind seen i kaamil yët ko Tubaa fii njaboot gépp wër ko ñu koy bégalee ñu sëñ Tubaa yendu ci mbég nee na Daaru Salaam laa njëkk a bégaate ginnaaw coono bu métti boobee moo tax màggalu Daaru Salaam moo mag ci yoonu mu rëcc ab daje fu ñuy daje di togg aw ñoom di joxe màggal Daaru Salaam ci mag kon bu yàlla dogalee ñu def benn conférence boo xam ne comité d'organisation bi ñoo ko def ngir gàttandoo ko màggal bi duppee ko Alaaji Mun Njaay Jóob delloo waat nañ mbàttu sa ca ndaa la wala bokk bi tiiw ja fay na mbaal ja ndax Alaaji Mun Njaay Jóob kat ba muy bàyyi bokkam ànd ak maam Cheikh Anta lii rek a taxoon kon la ko sëñ gaawaan waxoon na ko mun njaay bu ëllëgee lu ma sëñ Tuubaa sidd maa maa yow koy bokk loolu sët yi firndeel nañ ko ci dem yow ma xiyam yal yàlla may leen fan bu gudd waane ko wér ñoo ngi jégalu ñëpp wasalaamaaleykum wa